Jumproot présente le combat du choc. du ma xalaat benn góor de góor gu taxaw sama kanam xalaat naa ne bu ma la jàppee daa jeex. maa ngi moom dañoo war a jëflante li ma ko waxoon laa koy waxaat. ñoo nu jëflante de. leen laay xalaat quoi. ma ñëw samp ji xaat mu am nu mu demee ci côté bi. mais nag suul ay tànkam rek ndenge ñaram bi ñemee jam-jam yi. incha allah euh, lu mu indi dama koy bàyyi wax ji rek comme lu mu wax nee na dañuy jëflante ma moom. nee na dinañ xeex dinañ bëri bal bi mu ngi ci xalaatam la wax rek. waaye man bu ma ñëwee moom du puus du paas. Zambala. doo def dara. dernier combat maak Mamady Diagne dama ko dóor mu daanu te booy fay bëgguma ko dóor mu daanu dama fas yéene bëreeg moom. bagaaree dootu ko defati ba ilaa yow mi diini. bisimilah tapet nga ragal nga. barki bisimilah tapet nga. amoo fit barki maam Thierno Birahim yow dama lay lekk. yow ma suur sama ndey ji ma ci réew bu ñu wéetalee maa yow ma def la comme pentat. jërë ngeen jëf mbokk internet yi jàkkaarloo ak ñu ci lutte tv point com ñoo ngi leen nuyuwaat bu baax a baax di leen ziare ñoo ngi waat fii Mbaaw seet si Eumeu Sène ah borom taay si nga borom daf du wér waaw comme niñ ko tàmm di defee rek ah, parfois ñu doxantu fekk bettu ko fi tàllal ko suñu micro vraiment mu disponible nag bu ñu ko fekkee ah bu ko tasee moom ci bedd mi sax bu ñu ko tàllalee suñu micro mu wax waaw di am mbégte bu baax a baax ak yow di kontaan ci yow parce bëgg waxtaan ak yow tuuti rek ci combat bi war a am dimanche. entre Boy Faye ak Zambala ñaari bërekat ñaari technicien ku ci nekk wane sa bopp ci bëre simple bi waaw Jamaïcain tëgg ko def ko drapeau Abdoulaye Diop xaas combat spécial mu def ko drapeau Sumbulu comme ni ko Aliou Ndiaye di waxee rek mu seeg ma ne bu ñu àndee dañuy promenade waaw ñu war a def promenade nag ci arène nationale bi dimanche incha allah rabbi dama lay bàyyi la nga nuyu mbokk internet yi bu ko defee ñu waxtaan ci combat boobu. waa di sant yàlla nag bu baax di nuyu gi yëpp. ginnaaw bu ñu sant yàlla di julli ci yonent bi tedd bi sallallahu di gërëm suñu waajur yu mag di gërëm kilifa diine kilifa aada yëpp di ñaanal Sénégal gi yëpp fi jàmm yàgg ñi feebar yàlla fëgg seen bopp ñi caabi féetee ginnaaw ñu génn te bañ fa dellu mukk di xewul bu bari tabaawoon yàlla suturaal ñu mosuñ ci lépp luy lore ci kaw. waa ñi ci kaw moom laa seetaan nii waaw. <laughs> kon yow yow maa ngi yow yam bu toogee rek ñu pare ci. <laughs> waaw Sénégal moom bu toogee da ngay def da ngay ciy pare xam nga mais tamit aussi bëgg a xam suite bi quoi. Mm-hmm. waaw loolu la waaw. instant bi Sénégal bi mu toogee ban équipe ngay supporté. non supporté ma kenn moom sérieusement waaw. est nañu ne mën nga football de ñu ko mën football te naa ko tuuti nag <laughs> waaw mën naa ko waaw mën naa parce que man sport yu bëri dama koy faral di def quoi waaw mm-hmm. dama koy faral di ci foofu quoi. dara du la yàqal dara daal. mooy noonu du ma dara non xam nga xool xam nga kon sport la damay xool kii ñu fii coupe bi rek mais Sénégal moom ba ci ba yàlla amatuma waaw ku may faral loolu am na solo comme ni ma ko waxee rek ñaari champion war a bëre dimanche Boy Faye ak Zambala ndax ñaari xale yooyu miin nga leen miin seen waa miin naa leen nag ñu nekk ñaari champion. Boy fay champion la bu mag bu waroon a dépasé fi mu nekk la sérieusement Boy fay moom mbër la champion la champion bu bu ñuy séntu fu sori la rawatina Zambala Zambala moom bon dañoo dëkk mbaaw mu nekk suba rek nekk ku ku am yar ah. waaw vraiment nekk ku neex a dëkkal tamit aussi xam nga nekk tamit aussi borom jom Zambala tey heure bi waroon a fekk mu dépassé fii parce que bu dee ci bind bu dee ci ci ci ci kattan bu dee ci bëre lépp dafa wane boppam. Moussa Mbala moom dafa wane boppam kon tamit promoteurs yi war nañ leen di gersu waaw ku ci mel ne ay Doudou Sané Tyson 2 kenn waxaale wu ko saa bogal dafa may ay champion yoo xam ne il faut gars yi ci bàyyi xel. seulement ci lit lit lit traditionnel bi Serigne Ndiaye. ordinateur. nu mu keneen ki nu mu tuddati te bëri barki démb rek nu mu tuddi merci Obali Obali bu doxee rek nga xam ne mbër la. Euh, kii nu mu tuddati euh, Toubacouta. waaye non man damay gis ay champion ci tournoi yoo xam ne ay champion yu mag ah vraiment. yu bëri jël na leen gars yi may ay jël quoi nañ bëree quoi. Mm-hmm. parce que tamit aussi gars yi bu ñu toppee que ni di leen daw nii làmb dafa yaaxoo. Mm-hmm. waaw ñun loolu léegi la am quoi. mais mbër yi ñu daa toll fii dañuy xiifante. ñoom am nañ bind mbër te ñu euh, la suñu ko suñu ko bëree mu neex. non yor nañ bind ba pare tam aussi am nañ mën nañ làmb xam ba pare mën nañ bés waaw dañ leen war a pousser quoi ñu ñu ñu génn quoi waaw waaye dañ ambiance et puis ñu mën ñu mën ñu mën nañuy def lañ ko vraiment waaw mm. waaw ak même euh, bandi 40 ans tamit champion la maa ngi sax mais vraiment ay champion yu mag a mag a mag laa gis affaire bi waaw ay champion yu mag laa ci gis uh-huh. waaw ku ci mel ne Ratel uh-huh. Ratel tamit champion am na combat xam nga waaw champion bu mag la uh-huh. waaw Modou Boy Joola xam nga. Modou Faye waaye waaw Modou Faye te nekk si si ñun rek champion la waaw. ok loolu am na solo tudd nga fi ay mbër yoo xamante ne jàpp nga ni promoteur yi dañ leen mën a dañ leen war a may sens ñaar ñu war a bëri dimanche gën nañu bëre Jamaïcain may leen sens tuddee ko Abdoulaye Diop Xaas lan nga ñu mën a wax ci moom. waaw xam nga ki nga ko tuddee tuddee nañ ko kuñ ko war a tuddee mm. waaw vraiment man booba déggee ni moom lañ tuddee làmb ji vraiment am naa ci contentement bu moom ak euh, soxnaam sumbulu xam nga di lay ñaanal yàlla musal leen seytaane ñoom ay doom yu barkeel mm-hmm. xam nga sëy bi doon sëy boo xam ni xam nga dem ba ñu weer di weerante mm-hmm. <laughs> yàlla mën na ko xam yàlla nañ dem ba màgget xam nga seytaane ba ñu diggante ñu ngi leen koy ñaanal mm-hmm. voilà vraiment am naa contentement si Ablaye Diop xaas parce que ku bëgg social la ku koy def la ki jàppale tamit aussi doomu aadama yi la xam nit ku baax la vraiment nit ku baax bu ñu ko tuddee bés rek xol yëpp dafay sedd voilà kon Ablaye Diop xaas bésam bi moom ñu ngi ci woo supporter yëpp di ci woo amateur yëpp man Eumeu Sène maa ngi ci woo képp kuy bëggee Eumeu Sène rek maa lay woo ci bisu Ablaye Diop xaas bi waaw parce dina bëri cosaan xam nga man am na nu muy demee sax mais yow <laughs> voilà su ma contrat tëggul rek ma jàpp ni bis boobu war naa mën a ñëw bàkkul ko defal ko lu rafet du dëgg voilà exactement loolu la quoi di ci woo champion yëpp parce que man su ma waxee rek waxal naa champion yëpp ah voilà kon maa ngi ci ay wax champion yëpp nañ ko teewal ak waaw exact xam nga loolu nag moo tax ñu bëri gën ci kontaan parce que Lamine mi ñu war a décorer rek déjà ah noonu loolu beneen affaire la jàmbaar du dëgg. waaw kooku moom ñu champion ñu ko defar parce que ñun kenn ñu wax bàyyi leen. yéen itam kenn mënu leen wax bàyyi leen kon ñoo bokk liggéey bi. Mm. voilà noonu la demee quoi vraiment am naa contentement ci journée bu ñu ko tuddee quoi. Mm-hmm. waaw mérité na ko quoi. Mm-hmm. et puis combat bu bu bu mel nii xam combat espoir bu neexee ni ah, waaw ah non waaw ah non neexul ba neexul nag mais promoteur bu ñu tuddee sax mm-hmm. mais jamaïcain moom làmb yu làmb ji la tëgg ah. waaw ñu ngi ci woo ñëpp ah. ci bis Abdoulaye Diouf Sarr. Ah. yow yow ci loolu. bon maa ngi ciy jàmm. ñaq de. kirim ñu nekk ci sedd. waaw non dafa tàng yaa tàng tàngoor bi yow yaa koy sentir ko. ah. damaa sedd. da ah non mais tàng na de waaw xaw tàng tuuti rek du dara xam naa dama ñaq rek. yarama tàng. <laughs> non damaa ñaq rek damaa ñaq rek yaram tàng yaram non dama ñaq rek xam naa tàngoor laa amee rek. non hmm. la waaw. muy kay sedd nga amoon ndax danga naan su ma yeeku gars naan dangaa ragal sedd. waaw ragal sedd moom man moom sedd moom. Ah. bu ak ndox mu bëri mi. waaye làmb dafa métti. Hmm. Hmm. te damay damay am combat ci ci digg sedd. loo moo tax mu métti xam nga sax war taw arrêté moom dama yëg seddaay bi waaw. yaa ngi waajal le 30 juillet. di ñaan yàlla suñu borom may ma dam mais ñu koy waajal waaw ñu koy waajal nànk-nànk nag pour l'instant quoi. ba ci kanam non nànk-nànk rek. séance par jour. deux benn. waaw ba juillet. non waaw mais kon des na tuuti il faut que ma ma def ndànk quoi. waaye. Hmm. bu ñuy bëreeg Balla Gaye seen combat mujj bi 2015 nga ne ko dooma gis après ci nga décortiquer li nga waxoon nga ne ba ma koy wax peut-être affaire gàllaaj la doon wax mais liggéeyoon naa vitesse boo xamante ni bu may dal ci kawam du ma yëg foofu nga doon waxee combat bii ban genre préparation nga ci nar a defal. Oh, kon déjà mi ngi am combat muy préparé duñ def rek lu ñu ñaanu ko jàmm ak wér koy ñaan di koy ñaanal njabootam entourage bi yëpp. Mm-hmm. waaw di ñaanal tamit aussi suma rakk booy ñaaw bu baax a baax a baax xam nga li muy dugg yàlla su ma doon def ko si ndam. Mm-hmm. waaw mais fu mu toll nii daal naa leen ah waaw dama koy waaw moom fu mu toll nii dafa nekk ci combat. Mm-hmm. nañ ko bàyyi mu mu mu gérer solo mais gars yi fi de bu fekkee tamit mën nga jëlaat benn kii lañ la doon wax te am na combat Tapha Tine Lac de Guiers moom léegi xanaa ay waay ngeen di ak Lac. waaw mais man ko baax nga mais nag yow man gars yi léegi Eumeu Sène rek loolu la ñuy wax da ngaa baax da ngaa baax da ngaa baax koo mu ne da ngaa baax mbaa du yàq combat yi. non am na <laughs> non man moom waaye ñëpp laa quoi wax dëgg yàlla waaw man moom amu benn problème wax dëgg yàlla te yàlla na si jàmm di am quoi violence moom ñu ngi ñaan zéro quoi waaw ñëpp benn la ñoo bokk ndey ñoo bokk waaye at naa mu solo du dëgg. Mm-hmm. waaye sport la ñooy mayante xaalis ko ci munti daan tam ndam lu génn Sénégal xam nañ jaar nañ teg lépp rek ci cadre sport kaf agré xam nga yeneen suñu mag jàpp parce du ñu ay adversaire quoi mm-hmm. waaw benn benn temps bu gàtt la rek après ku ci nekk nekk ci leneen quoi du dëgg mm-hmm. voilà kon na rafet daal waaw mais man moom ñëpp laa yéene jàmm quoi wax yàlla waa ñëpp sumay waay lañ àddina mu solo dëgg waaw mais rek champion la tamit aussi na ko gars yi na ko gars yi jox ci combat yi mag yi mu bëri quoi waaw ah waaw moog si tey rek waaw mais loolu moom day des seen staff rek waaw day des seen staff rek bu ñu paree ñoom ñaar rek bu leen làmb waaw bu leen làmb boole rek mun na ñëw bëre waaw parce que mu toll nii moom si tamit amatul benn mbër bu kenn ku koy ragal la dëgër tamit aussi kon grand contre petit dafa xew waaw te waaw mi ngi noonu quoi ku ci nekk daal yaay xool lu lay arrangé rek nga def ko quoi parce que loolu moom seen seen seen seen kii la quoi voilà. loolu la am na argument yu daan si Siteu champion la war na mën a bëre ku ne war na mën a daan ku ne loolu la quoi sport la làmb la bëgguma ci sori quoi. kontaan ci yow. merci xam nga Philippe jaajëf di wax tamit aussi que ni saa bëgg am na combat xam nga ñi ci woo ñëpp ñu jàpp ci xam nga sama mbokk joolaay waa waalo xam nga. le 25 décembre am nga sa benn poulain boo xamante ne war naa ñëw muy Doudou Sané mu war a bëre kii Boy Mbour le 25 décembre Thiam production tëgg combat journée boo xamante ne moom tamit gala la ñaq jariñu war ci bëri ak Jackson Laurent Ndiago Alliance Baldé général Malika Bour Sine sa poulain boobu war ci bëri journée boobu nan ko gisee sa bala nga wax sax. waa mais am contentement bu rëy ci journée boobu parce que ay champion rek lañ boole espoir yi mag a mag mag lañ boole mm-hmm. rawatina nag ki nga xam ne nii aussi mooy du saane waaw kooku moom gaynde la du Sané non macha allah ñu ngi koy dafa bokk ci làmb waa non waa ñun ay champion lañ waaye Doudou Sané jàmbaar la ku bëgg làmb la ko wax. waa loolu jaadu na parce que ay champion la xam nga loolu moom bataay la xam nga mais en tout cas lu mu mën a wax ci Doudou Sané mooy nañ ko bàyyi xel champion la. si. non man su waxee rek li ma la wax na nga ci bàyyi xel bu baax mosuma waxantu du saane hmm. ah, yàlla yàlla def jàmm mais du saane moom gis naa ni ci ñuy téye làmb ci lay bokk. waaw na am na fit te bëgg na lu muy def te du fooyee làmb. saa boggal moom beneen affaire la duñ def lu ñaanoo ko yàlla suñu borom di ci woo waa yëpp waa boggal yëpp dëkkam yëpp nañ ko jàppale. rawatina waa mbaaw xam nga fu mu dëkk Kër Masaar xam nga waa Pikine na ko ñëpp jug jàppale ko parce que tamit aussi champion la te bëgg na làmb te tamit aussi mën na lu muy def te tamit aussi ku ci daj coono la waaw kon daal maa ngi tàllal loxo ñëpp képp ku may ñaanal rek sama combat boobu xam nga sama combat yi sax nga jàpp ci voilà parce que du saanam ci combat saa bugg am na ci combat ak kan moo ci amat combat sax. waaw kooku suma rakk la dèjà parce que yaa jaxaw su rakk la xam nga jaxaw dañu bokk ndey bokk bàyyi parce tey boo xoolee yaayam suma bàjjal la yaayam ak sama papa ñoo bokk ndey ak bàyyi waaw kooku suma rakk la kooku moom ak waajal sama bopp di ko wax ne ko ñëpp jàppale dimanche moom dara du yomb waaw ñi ci woo amateur yëpp ne wane ne am nañ ay combat yu neex yu ma si tante combat yëpp dina neex incha allah jërëjëf jàmbaar